jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag dama ñëw seet si koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb rawatina géejawaay bi nga xamante ne ñëpp boo ni monument wu géejawaay rek xel mi dem ci moom te moom la sax waaye gis nga ko tey macha allah mu ngi def balan ah, alaaji bu demul mbàkka demul bi di dafa maa ah, def balaa de balaa bu de nga def jili waaw ah. lay ziar di leen ziar ñëpp mm. waa wasaare mm. ak sa caméraman bii nga àndal mm. maa leen ziar nga fekk ma fii sama chef sama koñ ma toog toog sama boy ñoom zoo at kii mbay magam ji Ablaye mbay nga xam ne seddaay bee ko dàqee fële ñu toog ak sama jigéen bi ah vraiment sama booy ñoom ñëpp maa leen ziar di nga fekk ma sama chef géejaway ma toog fii sama am benn booy moo xam ne zoo mooy borom fast food bi lu mu jaayul baaxul. Eh. sama rak sama xarit. voilà non non sama booy la sama booy la vraiment suma xarit la. Eh. émission émission yu bari da ciy sonn wax dëgg yàlla. Hmm. du nuy waa Géejawaay du nuyu kilifa yi nekk Géejawaay yëpp. Hmm. ma kenn di ko tàmbale sama waa ji maa ngi koy ziar bu baax di ko nuy muy Modou Dieye Sène. Hmm. sama xarit sama patron sama lépp comprendre Dieye. waaw waaw ku baax la. du baax di nuyu Aliou Sall. Aliou sama xarit. Aliou Sall waaw. ban Aliou Sall ancien maire. waaw. Ahmed Aidara du sa xarit. an kay ñoom ñëpp sa xarit waaye soo déggee ma wax la loolu. xam nga nit ñi fi ñuy xalaatee ak fi ñuy gisee. xam na euh, ne man sama diggante ak Aliou moom laa àndaloon ci élection yi. Mm. lu dul élection sax moom laa àndaloon di ko jàppale. Mm. ndax sama xarit la. Mm. sama waay la comprendre nga. tey ji su Aliou Sall ma kii faloo. ay dara hmm. nga tëb rek na maa ngi nuyu Ahmed Aidara wala yooyu dañ koy gisee neneen voilà ah, voilà te man du ma daax doxe noonu hmm. man damay sàmm kóllëre ku nekk nag ma jàppee laa lay jàppee waa Aliou Sall dafa maa yëg nekkoon sama xarit Ahmed Aidara sama gars yi la hmm. comme Baba Balla Gaye ba mu ne suba la dañu dañoo daje arburaax mu yëkkati ay billets may ma xam na ne Aliou Sall laa àndaloon àdduna noon la ah, Aliou Sall liggéey na géejawaay loo xam du fay bu mukk Sall ngaari boodu gëne lam toorooda hmm. turam du fay géejawaay loolu yàllaa ko def hmm. comprendre nga liggéey na Ahmed nag ñoo ngi koy ñaanal hmm. yàlla na yéen bi oyof ci koom yàlla na ko ndam li jëkk ñu wax ñun ñëpp géejawaay la soo demee ba ne monument géejawaay kon man géejawaay moo ma ñor ku bëgg géejawaay dama lay bëgg ku jàppale géejawaay dama lay jàppale ndax man awma lu dul géejawaay géejawaay ci kaw ci kanam rek Sénégal jëm kanam ñu ci des sa ginnaaw waaw Pikine nag. Caaroy ak yëmbal Parcelles ak <laughs> yëmbal ak fépp. ci ginnaaw ci ginnaaw. géejawaay <laughs> ca kaw ca kaw ca kaw. mbër géejawaay ca ba pare. Uh-huh. du sama rakk uh-huh. grand champion. Hmm. Balla Gaye 2. Hmm. di ko Mm. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. Mm. ci bis mu jëm yàlla may ko ndamu seddu guy yu. Mm. voilà euh, di ñaanal tamit guy gi. balan bi bala may ma tuuti ma ñëw rek. balan bi la paix la. jàmm jàmm rek la paix. <laughs> di ñaanal sama rakk ci tamit guy gi. Mm-hmm. bisam bii mu jëm yàlla na ci am ndam lu seddu guy muy kañ la vingt avant la vingt lundi. ëppoon de presse bi. yaa guy gi da ngeen di juboo yow saytaane li may wax saytaane yaa ngi ni yaa jël. nga dégg mu wax nga taxaw naan ma yàgg bu leen bàyyi seen affaire saytaane yi ak seen affaire yi non non bàyyi leen yii waxtaan seen dum wax leen bàyyi leen affaire saytaane kooku sama rakk la jotewunu dara jàmm ak salaam la sama rakk la sama frère dëgg la sama frère c'est don de sang hmm. guy gi moom c'est don hmm. man gën way laa am mais problème loolu du dara weesu na bàyyi leen yooyu yooyu jarul nettali bàyyi leen yooyu yooyu baaxul mm. yéen ay affaire saytaane yéen dong leen moo tax ñooy wax ay saytaane ngeen mm. bàyyi leen yooyu mm. ko di ko ñaanal ci combat bi jëm yàlla may ko ndam lu sedd guyu avant boobu nag lundi la open de presse bi maa ngi woo ñëpp képp kuy mbër te nekk géejaway open de presse bi maa ngi lay woo man maa lay woo ndax man la tuddee bi open de presse bi mm-hmm. te sama rakk la mm-hmm. man géejaway laa am mm-hmm. su Balla Gaye laa koy commencé maa ngi koy woo ci open de presse bi dina ñëw Hmm. Lac de Guiers. Hmm. maa ngi koy woo dina ñëw. Hmm. Ali Seyde. maa ngi koy woo dina ñëw. ci open de presse guy wootewul man maay woote. man maay woote. képp kuy sa nit moom ngay woo ñoom samay rakk lan. dañoo dépassé ay nit ay rakk. samay rakk lan c'est don de sang ñoom ñëpp. samay don de sang lan. comprendre nga. su ma ko tàmbalee ci Balla Gaye teg ci Lac de Guiers. teg ci Ali Seyde. Marley Pape Thiam. Jackson. Hmm. écurie moom dama ko jëlal ndax ñoom ñëpp xam den fa tey ñoo ëmmat seen si junior rek. Hmm. ñoom njambaa nag. Hmm. Euh, ñoom mbayti nag booy yëpp ba ci xale yu ndaw yi. ñëpp maa ngi leen di woo ci ëppante pees nañ ñëw nga xam ne ñun géejaway la ñu am géejaway la ñuy tiitaroo këleeru géejaway la ñuy défendre. nañ ñëw dooleel ko jàppale ko. ku ci bokkul ñu génn ko ci bugguma xiiroo bugguma ŋaayoo bugguma lii wax yi wax non non non non non. Hmm. jàmm laay woot soo gisee ma def balaa la paix laa bëgg. jàmm rek nga bëgg jàmm rek te loolooy am incha allah rabbi lu nu ñootu jot ca. Hmm. jàmm yi am te jàmm fi sa am xañ na ñu ñëw wax ci suufar yëpp bala Gaye jàppal guy gi dara fereeram la. seq hmm. na lu ne. Euh, guy gi jàppal Balla Gaye dara. Mm-hmm. guy gi fii la ñu jóg chaque jour nee ngi kër Balla Gaye ñu fiy woote ay max yi football ak yooyu. Mm-hmm. àdduna amul solo. Mm-hmm. ñun Guédiawaye la ñu am. Balla Gaye musuma toog ba mu wax ci guy gi dara barki Serigne Saliou Mbacké. billaahi wallaahi wa taala musuma toog ba mu wax lu lu baax. comprendre nga. man man man man du ma naa feq. man du ma saytaane. man duma fii ba rapaj. comprendre nga. Balla Gaye suma rakk la. c'est mon frère. comprendre noonu la guy gi nekkee suma rakk. Lac de noonu la nekkee sama rak Alioune Seye 2 noonu la nekkee sama rak. Mhm. ak ñoom Marley boo yëpp tout ñëpp ma jox cër. Mhm. man ku nekk ku ma yëg ma yëg la ku nekk nag ma jàppee laa lay jàppee. ñu ñëw ci may ma tuuti paree gu ma. benn affaire laay ñaan open de presse bi damaa bëgg ñëpp teew. géejawaay gépp géejawaay gépp génn kuy autorité tam nga génn biir géejawaay. te jàppale ko ndax ñun géejawaay la ñu am géejawaay la ñuy tiitaroo géejawaay la ñuy sagoo man fu ma dem couleur géejawaay laay défendre. foo taxaw dañ naan ma géejawaay est-ce que loolu xam nga dafa neex dafa sedd xol moo tax nag dama chaque jour damay bëgg géejawaay am ndam. daa mel ne mairie bi sax mu ngi saxal. Oh, déet déet déet loolu lépp waxuma ko loolu déedéet déedéet déedéet déet bul ma dugal. yooyu jàmm daal laay woote la paix. <laughs> la damaa bëgg ñëpp mbëru géej wa yëpp ñu génn ñu jàpp teene daaru loo koy defee. Mm-hmm. daaru. Mm-hmm. Euh, euh, kii nu mu tudd euh, cité bi nu mu tudd cité bi nekk ko côté gàddaay. comico comico comico la koy def cité comico ci terrain bi. Mm. cité comico la koy defee. Mm. altine bii di ñëw. Mm. maa ngi woo presse bépp nañu ñëw teew ndax man la ko tuddee. man la ko tuddee. Mm. te ëpp képp koo xam ni xam nga liiru jaan tey ñaanal liiru jaan bëgg naa nga jàppale ko nga ñaanal ma ci kombaam bi yàlla may ko ndam. am na wax yoo xam ne nag bugguma koo dégg. Mm. yooyu mu wax yooyu yëpp garaawul keroog wax na bay jooy nan dafa am yooyu yëpp garaawul. Mm. xañ na la moo toll foofu comprendre nga. waaye nag man euh, vraiment fekkee loolu am na. rafetlu wu ma ko. te yaakaaruma ne ma vraiment nag. ku dëkk géejaway yeewoo géejaway nekk kilifa géejaway. di dem di ko ci ndax mu daanu. man yaakaar na ma soxor mënut a yem soxor mënut a àgg foofu. mais loolu am na wala. non wóoru ma moom moo ko wax ban wóoru ma. wax dëgg yàlla wax na ko ba jooy. waaw waaw wax na ko ba jooy loolu nag moo tax xam nga dégg naa sax rëg-rëg li ci waxaale naan ko day woote ay walloog mooy waral yi yooyu yëpp. garaawul moom na yem caaro yem ñun ñoo moom sunu géejaway yoonam nekkul ci géejaway. Hmm. na yem caaro yem. comprendre nga. Hmm. gox bu ne am na lu koy yëngal. gox bu ne am na lu koy yëngal. léegi gox nga bëgg mu yëngu. kan yow. caare nga bëgg mu yëngu. non non waxuma dégg dama ne gox bu ne am na lu koy yëngal li koy yëngal mooy lan. Hmm. chaque jour nga dégg fa xiroo ŋaayoo suñu mujjee nu ñuy mujjee àndaat booloo nekk benn ñun géejawaay ñoo bokk ndeeg bàyyi. xiroo wunu ŋaayoo wunu. combat ñu kenn déglu ma rek histoire ñu kenn comprendre ñun lan lan soxla mu dem ñun ñëpp ñu génn mobiliser gunge ko mu dem bëree daan ñu ñibbi sek jàmm feete sunu victoire biir géejawaay am na solo. Mm. mais liiru li ma bëgg a ñëwaat mooy combat bi. Mm. le fait que guy gi tuddee la bis. waaw diggante bi la ko guy gi tuddee. waaw revanche la ci yow tamit. nu mu nekkee diggante ca ah bëri woo Xaadim. waaw waaw daan waaw revanche la kay. Xaadim Njaay ngeen ba rëg rëg nga ñëw nga. du dara du tus guy gi guy tuddee la bisam. waaw sama dama ciy takk rip. open de man la ko tuddee dama ciy takk rip sama rakk la. kooku ngay noonu du tus du dara defee la. Xaadim Njaay du tus bëgguma jaar ci tur bi. ngóor soosu du dara defe naa la. du ah, dara booy booy ngeen bu rakkam de. waaw moo xam. te yéen ñoo xam mën nu ñàkk sax ngeen daje ci géew. su nu dajee ci géew fu nu géew bi moom dinaa man maa man si boppam maa koy njëkk duma ba noppi. après guy gi ñëw jàpp rek rek dóor ko duma ko daan ko. dina yomb wa wa waaw ndam la njëkk ñun benn lanu xiiroo wunu ŋaayoo wunu. dafa am xiiroo wunu ŋaayoo wunu. Mm-hmm. comprendre nga. Hmm. damaa bëgg ñun ñëpp ñu bokk ndey ak bàyyi ndax oh, xam nga nit ñi ku xamul dañuy yaakaar ñu dañoo am problème suñu biir amuñu problème de déedéet amuñu problème. Hmm. amuñu problème ñëpp dama bëgg. Hmm. ah ñu ñëw ci open de presse ko jàppale ko bisimilah zoo zoo ngi noonu mooy ne ataaji. ndeysaan moom de sama booy la <laughs> ma ma koy daal de waaw. sama la. waaw ataay bi da neex. voilà lépp Zo moom la mooy borom loolu rek nga gis moom fu soo la jëmee fataaya wala. Mm. hamburger nga xam. bis mm. xam li ma la. waaw ak jiili. Mm. àdduna amul solo. jiili man géejawaay moom a ñor. autorité di géejawaay bëgg ñu ñëw jàppale ko. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp képp kuy géejawaay ma tudd ma ñëw. Aziz Ndiaye ma yaa ngi woote mais di nga woote. waaw non dama non dama affaire guy gi laa nekk man. lamb guy gi laa nekk. ndax daf ma ñor. Mm-hmm. daf maa yëg. muy Aziz Masataak Bayak ñoom Kor Ndiaye ak. Mm-hmm. ah Aliou Sall ak. Mm-hmm. Ahmed Aïdara ak. jërëjëf mm-hmm. ñoom Fouta ak képp kuy autorité nekk Guédiawaye damaa ba ñoo ah, ah, kii nu mu sama waa ji ah, kii Moussa Kees. kii Andaw ñoom Pam Mamma. ñoom Jéey ñëpp damaa bëgg ñu jàppale ko te yàlla tax at man. at man. ak yow waaw. maanaam ñu jàppale ko ñaari jàppale. waaw ñaari jàppale jàppale ko nag tant que doomu. géejawaay mais jàppale ko en tant que liiru jaar liiru jaar bi mu tuddee am na dégg naa muy lim ay li ñu demoon. Hmm. Euh, kii sëñ Modou sey borom taw féex kooku ñoom ñaar ay xaritam la lu yàgg la. moo kan ah, guy gi. Hmm. xam naa ci dara xaritam la bu yàgg hmm. ndax dama doon toog ak sëñ bi mu di ma wax ci guy gi. est-ce que ma la dëgg la ma ah, am na ah, coow yooyu ñu ne sax dama woon noonu man toog xam na xam naa ne taw feex dina ko jàppale. dina ko hmm. gis xam naa ne taw feex dina ko jàppale. dégg naa tamit muy wax ak kii nu mu tudd. Malick Gakko. waaw nee na Malick Gakko. rëgg-rëgg na ko ci. waaw cinq millions yi cinq millions yi combat bi su taxaw woon. Hmm. Malick Gakou mu dégg naa ci Malick Gakou moo waxoon moo koy mottali guy guy gi cinq millions. Hmm. Malick Gakou moo ko waxoon moo koy mottali cinq millions. Hmm. ba guy gi jël combat bi. te combat bi dafay yàgg. lamb dafa metti combat bi dafa yàgg lamb dafa metti Malick Gakou kilifa la comprendre nga su fekkee wax na ko na génn jox ko cinq millions yi. ndax làmb ji dafa metti te combat bi dafa yàgg. combat bi dafa yàgg. comprendre nga nag Malick Gakou génn jox ko cinq millions yi. mu jàppale ko combat ndax xam nga lu tax. Mm. combat bi dafa yàgg ba pay dafa metti dafa metti mm. man nëbb tuuma ci làq tuuma ci. sama rakk la. Mm. sama frère. ku ma yëg ma yëg la. jël bis bu mel ni tuddee naa la ko tuddee ma ko politicien tuddee ma ko autorité. tuddee ma ko tamal yoruma ñaari salaamaaleykum. ñaa waaw wax noonu la ko waxee. xam nga aw ma ñaari salaamaaleykum lu ma ko jox sama lammeñ maa ko moom damay wax ba teppeeku. damay wax ba teppeeku. nan génn ñu jàppale am naa fu waxee. àdduna bépp journaliste yëpp ak may woo chaque jour. Hmm. pour ñu woo ma ko may woo pour bëgg a wax ma wax. Hmm. te tey ji yow ba muy njëkk ba wax naan ma la tuddee ba si yow la ko njëkk a waxee. ci man a si njëkk yooyu la ko hmm. moo tax il faut ci yow tamit. xam nga damaa bëgg ñëpp ñu jàppale ko dooleel ko ci combat bi yalla may ko ndam lu sedd guy ak képp ku sëriñ bu may ñaanal ko fonk liiru jaan. bëgg liiru jaan bëgg naa nga jàppale ma guy gi ci combat bi ñaanal ko. sama yaay ji Adja Gass Angleterre ñoom ñëpp maa leen bëgg ñu ñaanal ko nan ko ñaanal moom ñoo xam suñu bëree fi day dem ba ay dëkk ak dëkk billaahi dafa ñaan. kàlla sama yaay Adja Gass. ndeysaan barki sëñ Bamba ndax bëgg liiru jaan. dëgg la doomam hmm. waaw bëgg liiru jaan doomam. loolu laa lay am lu may wax. Hmm. te ñaareel ba mooy. jour làmb ji bu dama bëgg mobiliser. yow mi géej way ñëpp mobiliser génn. dooleel ko ca stade. di nga dem stade yow. waaye lan moo may tee dem stade la tax ma du ma dem. damaa yaakaar open press. non lan may tee sama rak dinaa dem stade. dinaa pour du ma dem ma dëkk Géejawaay di monument Géejawaay dama ko xale yi lan moo may tee dem stade. gisuma ko de ah lan moo may tee dem stade. gisuma ko de man daal open de presse fi mu ne nii maa woo ñëpp. altine képp kuy mbër mu ndaw ba ca mbër mu mag ca Balla Gaye laa ko commencé. Hmm. ñoom Lac de Guiers ñoom guy Gui ñoom Jackson ak Alioune Sèye ak euh, booy yi dëkk Géejawaay euh, saa kees. Hmm. ñoom saa kees ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tout dinañ ñëw open de presse ndax lan doomu Géejawaay xewle. seen mag lan tuddee bis bi samay rakk lan. am na solo waaw liiru loolu am na solo daanaka li ñu li ñu bëggoon nga wax ko ci yëpp. waaw ci làmb ja wax nga ko. waaw mais dégg naa da ngay waaj a xaru fan damay waaj xaru. yow loolu daal lan moo ma soof ci àdduna MMA bi ngay jëm. waaye yow waaye man xanaa du affaire góor. MMA dégg naa li ma waaye loolu du dara xanaa du affaire góor. xanaa du affaire góor man góor la góor la ñëpp nee na liiru daa bëgg xaru lu may xaru mobile laa soxla xanaa xam mobile laa soxla ci événement bi. <laughs> mobile benn soxla. du dara tapet la maako wax ragal la. mobile bu du dara saytaana la. moom du dara. maa ko wax moom laa soxla. du nuyu waa Amérique gépp moo njaay directeur seer série Madeleine maa ngi koy nuyu eh, ah eh, eh. ak ñoom ma faal Baye Fall ba Ablaye Sarr ak ñoom Coy ak ak sama booy ba euh, kii tam doon bëre Pape Sène te doon Pape Sène mu daanu <laughs> Evra Rousse <laughs> sama rakk ji di ko féliciter comprendre nga di nuyu waa Amérique gépp at euh, Mor Ndiaye moor Ndiaye hmm. at Afia hmm. waa Canal ñoom ñëpp maa leen gërëm di sant di leen nuyu at Père Babou maire Assou Faye at Cheikh Thiam téer bu mag ba nekk Amérique sama copain Cheikh Thiam at Bo Diop rasil at boos waa Amérique gépp maa ngi leen nuyu deen sant ndax tey ñoo yàkkam sama combat ci MMA bi ndax waa Amérique ñoo ma bëgg man at Margot waa Koosil ba ñëpp ndax man dan ma mobile da nga koy jël ay ginaar laa ciy reer fii ba noppi jox ci jeeg jox ci xale yi yow lan la affaire góor la mobile ma du dara du tus du tus maa ko wax du dara waaye yow dimbali ma muy tàppet su doon loolu am na ko du ko wane fii ci làmb ci ay moroom ma fi nekk mu rayante fii ba am ko ay moromam ñoo nekk ci làmb ji di ràññee na ko def ci làmb na ko ñëw def ko ci làmb ji. tappel la du tus maa ko wax. ñu jox la avance barki Cheikh Ahmadou Bamba pare naa pour mobile. moo gën woon na ma. Ah. pare naa je pare. te di nga ko jël waaye lan mooy di nga ko jël. xeex boo xam ne oh, oh. ci kaw moo gën nee na ma liiru amul annière ma ne ko gënoo ma kaa xam <laughs> nee na ma amul jéggi saako ma ne ko gënoo ma kaa xam <laughs> comprendre nga. digg géew bi dañ koy tëj nee na ma kaaf la ma ne ko gënoo ma kaa xam. su ci pare ku daanu dañ lay dóor mën nan ma rey ma dee man maa lépp am ah, man ma mën a wéq yow a barke Sëriñ Bamba mën naa wéq mën naa lépp mën naa wéq mën naa lépp man maa pare naa su ci pare pour MMA bi pare naa te yow mobile rek nga soxla moom laa soxla wala euh, Pape Sène man mobile gën a soxla sa Pape Sène laa gën a soxla ndax làmmeñ bi dafa laa gën a soxla dama bëgg tëj làmmeñ bi j'arrête et eh, mobile j'arrête mobile waaw doomu Grand Yoff. mi ngi mel ni Grand Yoff la rek. Grand Yoff la ah, ma ci xam xaw ma de Grand Yoff de yaakaar naa ay gaynde fa dëkk waaye moom bokk ci gaynde yi. léegi lan moo tax nga ñeme mobile ba. jël xam ba laaj mobile daf ñu doon bëgg a jaxase. géejawaay yaakaar dama jaxase màgg guy gi. dama bëgg a jaxase sama rakk ah saytaana la. <laughs> mais yow dafa yaa la <laughs> dafa yaa la ñun ñoo bokk ndey baay te jàmm <laughs> la ñuy woote. Ah. xiiroo a ah, ngaayoo amu fi kuy xiiroo ko ngaayoo nga dem ca ñu xiiroowunu ñaayoowunu booloo la ñuy def nekk benn lu ñu yóotu jot kon open press bi dinañ xaar nga ñoo naan boo jë boo jë comme lépp lépp nan xaar lépp. nan xaar lépp suba lépp tàmbali. nan ah. xaar lépp nan xaar lépp dinaa wax ba teppeeku. mais man sa dugg si ci ëpp xaw de dinaa ëpp dugg bi dara yëfi làmb dañoo nekk si làmb waaw làmb la nekk làmb la ñuy waajal waaw dinaa dugg si dinaa ñëw daal waaw incha allah rabbi te mbër yëpp di leen ñëw sooba yàlla incha allah rabbi hmm. waaw fii la koy defee asag naa Reug loo koy wax. li ma koy wax na yaru. Reug su yaroo. mu hmm. yomb ci moom. Hmm. su dérapé nag day metti ci moom. ndax ah guy gi mer la fanaanoo. champion d'Afrique wuu waay su nekkee champion d'Afrique rek. guy gi tam champion la. guy gi sambi guy gi jaar na lutte bi. jàmbaar la def na fi lu ne. waaye na yaru. ki muy dajal champion la de. ndaanaan la de. ku daan giri këpp na fi ay reer ba tàyyi. këpp na fi ay reer ba tay daan na Gris daan na Elton champion la waaye nag <laughs> ki muy dajel ah je attention na noppi daal su bëggee jël bi yomb su fi nekkee nag di wax yi muy wax nii nii nii day gën a métti si moom de day gën a métti si moom ndax guy gi mii ma gis dafa mer te gaynde mer la fanaanoo. dafa mer lu ko mer waaw ah xam na ko wax yii rek rek di wax. moo ko merloo. nee da koy yëgal ci kees bi. waaw baax na. nee na jël na da koo sànni même jàpp ko. kanti rëg rëg nee na guy gi da koo nax moom dafa nax guy gi. sànni ko yooyu yëpp dafa bëgg a dugg ci mentaleem rek xam nga booy yi dañoo yeew dañuy bëgg bëgg a jaxase ko bu ko jaxasee dugg ci mental guy gi daal li ma koy digal mooy nar nekk ci ruqam rek entraîné. ah bàyyi bàyyi bàyyi li muy wax ci rek man maa yeewoo wax ci. Hmm. waaw waaw moom ci digg géew ba moo ko moom foofu laa ko sas digg géew ba li ci des ma maa ko kon fii ba la yor wax. fii ba si la fin maa moom wax ci comme lépp sama rakk la c'est mon frère. man ku ma yëg ma yëg la ku ma yëg ma yëg la. Mhm. ma yëg ma mhm. waaw li may ñaan daal moom yàlla na nu yàlla defal jàmm. te ñëpp géejawaay gépp génn jàppale ko dooleel ko. Mhm. xam ne ñun géejawaay lan am géejawaay la ñuy tiitaroo comprendre nga. waaw te bàyyi wax ci sew di wax benn affaire benn appel. Ketchup Boucher. moo guy gi ñoo bokk ndey ak bàyyi. dëgg la rakkam la. Mm-hmm. guy gi magam la. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. nanu ñëw ñu mel na ñu mbokk ndey ak baay mu ñëw ci bis bi maa ngi koy woo ci bis bi ñoom ñëpp ñu seq jàmm ndax bëgguma xiiroo ŋaayoo. déedéet. ndeysaan xiiroo ŋaayoo. képp koo xam ni. yaa guy gi amoon ngeen xaar ma yàlla muy xale ak yooyu bëgg naa ñëpp ñu nekk jàmm. bokku ndey ak baay ñëw dooleel ko ci bis ba ndax lii dara sax man maa tax man mii seen mag. kon séntu nañ open press nga indi buuse indi safara ñëpp ba booy yëpp ñëw bu sita ñoom ñëpp ñoom sax booy yëpp deen ñëw ndax surul dara man seen kilifa laa seen mag laa te guy gi dafa jël lépp open press teg ko sama loxo bëgg naa ñëpp ñëw ba pare ñu seq jàmm amul xiiroo amul ŋaayoo lii rek ma woo ne lan bëgg laa pee. jàmm rek mu ñu bëggal neexal. <laughs> neexal. Oh, <laughs> ah loolu lan xam ngeen di way ngeen xam loolu laa bëgg loolu rek la ko defal ndeysaan bul bul jooy liiru bul jooy bul jooy liiru barki Serigne Saliou Mbacke loolu laa bëgg na ko defal sa xol say na amul solo dëgg la fii loo gis damay jeex ndeysaan ku la yëg nga yëg ko dëgg la ku jël léegi daal ko tuddee su ko neexoon dem seen bokeneen dëgg la man yoruma ñaari salaamaaleykum wallaay dëgg la sama lamme nag laa wallaay dëgg la man ma dimbali wallaay jaat dëgg la suturaal ma dëgg la jaat di woo ñëpp sagal ma dëgg la man lii la am ñu sagal ma dëgg la kuy mbëtt géejawaay nekk géejawaay di takk ngemb hmm. maa lay woo ci bis bi ku ñëwul nga ko barki Serigne Saliou Mbacke déggoo ma de képp kuy takk mbër ngemb mu ca Balla Gaye laa ko commencé hmm. ba ci suuf ba ci suuf xale yëpp hmm. ñoom saa kees ak Aliou Seye ak Lada Gueye ak Guy Gueye ak déggal Marle Pape Thiam Jackson xale yëpp ndax at at kii nu mu tudd euh, fils de Balla fils Balla waaw ñoom ñëpp nañ ñëw ndax ku ci nekk da am bis dëgg la te soo amee bis bu nga ñu la mhm. ko ci kon am bis doomu géej way ñëpp nañ génn mhm. ñu boola wandee ñun jotewunu dara mhm. jotewunu dara loolu laay ñaan te loolu laa bëgg yàlla na ko yàlla defal voilà loolu laa bëgg ndax fii la waxee woon lépp moo tax ma waxee ko fii man tamit voilà sa wa ko wax moo tax ma waxal la ko fii ñaareel ba dafa am leen lu xew dafa am benn mbër bu nekk ci réew mi muy sénégalais muy ndongoloo ndongoloo dafa am lu ko nattoo ko dal ndongoloo ban mbër bu Grand Médine deret dafa foor yaay dafa foor mhm. yaayam dañ ko téye mhm. ak ñaari rakkam yu góor dama mhm. bëgg képp ku autorité te nekk géejaw euh, nekk ci àdduna bi nekk ndakaaru nekk géej at foo mënta nekk nga jàppale ko taxaw ko booy bi fan yi vraiment lekkul naanu comprendre nga yaayam dañ ko téye ak ñaari rakkam yu góor comprendre nga dañ leen a téye te xam nga yaay dafa foor kenn yëgu ko ndax bugg koo wax kenn da cee waxtaan ak moom man. Hmm. woo ma waxtaan ceeg man. Hmm. moo tax nag ma bëgg. Hmm. autorité ñu jàppale ko taxaw ndax yaay dafa foor ci doom. te booy bi li mu yoroon yëpp neen def na ko ci. te vraiment Mm. tukki woon na fi. Mm. comprendre loolu laa bëgg ñëpp ñu jàppale ko. Mm. àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi dañuy liggéey su jeexee jeex na na ñu nañu yéenante jàmm. na leen yéenante jàmm. moom nag lii nag bëgg naa autorité yi jot ci. ñëpp taxaw ko jàppale ko. yaay dafa foor. sa yaay bi la jur ñu téye ko. dafa neexul ci xol ba pare at sa ñaari rak yu góor. xam nga dafa metti bëgg naa ñu jàppale ko. taxaw ko képp ku ah, nitu a wala ngay autorité. man de sama avocat bi moom dina ko jàppale te su bisu taxaw naa ko wax dina taxaw. muy maître Ndiack Ba maître Ndiak Ba maître Ndiak Ba. Mm. dinaa ko wax incha allah rabbi mm. pour suy taxaw mu jàpp ci. mu ñëw plaideel ko. Mm. waa at maître Dialy kan. maître Dialy ak ñoom dan. ñoom ñëpp daan ko wax ñu taxaw ko ñu jàppale la ndax àdduna amu solo. ñun ñëpp ñoo bokk ndeg bàyyi. comprendre nga man ñëpp ma bëgg mbër yëpp ma bëgg. waaye nag géejawaay laa am géejawaay mooy sama chef. géejawaay mooy sama pari. mooy sama lépp. Mm-hmm. comprendre nga. dëgg la muusu géejawaay sax su dee xëccoonte benn affaire ah. maa ngi géejawaay. moom laa may mooy sama chef. maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. Hmm. képp kuy mbër te nekk Guédiawaye yàlla na la yàlla defal jàmm. amiin lu nu songu daan ko. boole boole xol yi. Hmm. xol jour yi équipe nationale. Hmm. lu ne wax naa ko ci na leen boole xol yi. te bàyyi xiiroon te ba ŋaayoo bi. ndax day am ñoo xam dañ doon nekk ci toujours ñu seen doom walla ñu ci estaf bi ñu dàq leen ah ñu doon salaire amuñu fa sewal seen jarbaan ne ko nekkatul fa ñuy jàpp euh, bëgguñu équipe bi dem. Hmm. ah hmm. ma ci wax guddi bi ci tey xool yëpp booloon nañ ba coupe bi ñëw nag jàmm. Hmm. yàlla nañu jig. amiin euh, Sénégal ci kaw ci kanam. coupe du monde bi coupe du monde yàlla nañ ko jël. ak Ligue des champions yàlla na ko jël. Ligue des champions yàlla na ko jël koy fubalee. ah ay ah, liir bàyyi sa yéen. Sénégal fu muy fubalee ah, Ligue des champions. Ligue des champions bokku ci bokku ci lu tax xanaa du équipe ñun tubaari kàlla sunu xale yi yàlla na yàlla dafa jàmb fi indi problème de. lu lu ne mën nañ koo jël. Oh. yàlla na yàlla dafa jàmb. liir da ngay def TikTok ak déglu ma ak sama numéro de ba déglu ma rek sama numéro 2 bi. ailier de Ciss Saliou Ciss kenn du moom yàlla na ko yàlla defal jàmm Saliou Ciss yàlla na signé ci club yu mag ndax daf maa yëg te ku ma yëg ma yëg la Saliou Ciss sama booy la sama booy la c'est sama booy la na ko yàlla defal jàmm mm. ak équipe bi yëpp sunu góol bi rek entraîneur bi yàlla na ko yàlla defal jàmm ak Mendy Aliou Cissé déet musuma xas Aliou xamul dara bañkat la dafa am jom yàlla na ko yàlla defal jàmm déedéet musuma wax loolu <laughs> Aliou Cissé guerrier la euh. gagneur la euh. ah, Sadio Mané euh. yàlla ko yàlla fal cat at bamba waaw garaaw lu fay na lépp <laughs> at bamba xale yi nekk ci équipe yëpp yàlla na yàlla dafa jàmm ministre bi nag Matar Ba gàcce ngalaama méttoo ko hmm. ndax dafa bëgg sport yàlla na ko yàlla dafal jàmm ministre Matar Ba yàlla na ko yàlla dafal jàmm hmm. ah hmm. équipe yi yëpp yàlla na yàlla dafal jàmm ndax ñu lii lan am Sénégal la ñu am Sénégal la ñuy tiitoroo fu nu mënta demee Sénégal la ñuy tiitoroo comprendre maa ngi nuyu sama Youssou Ndoye international basketteur bi tam maa ngi koy gërëm. goro petit petit maa ngi koy gërëm. a hmm. président Mamour Kandji borom Mbour géej. Hmm. képp kuy autorité nekk Géejawaay gërëm naa la sant naa la. Hmm. di leen ñaanal yàlla defal ñu jàmm. ah ñu boole xol ku ci bëree daan. am na solo. loolu loolu daal laa maa ngi lay jaajëfal maa ngi nuyu sama waa ji Modou Dieye seen waaw di sama rakk ji nag. dafay am bis te damay sot xam nga damay sot. Géejawaay damay sot. taw feex mbaay jànkat bu mag boobu. Mm-hmm. taalibe Serigne Saliou taalibe Cheikh Béthio bi dafa woote Sorano la 18. bii. Mm-hmm. incha allah rabbi Sorano mm-hmm. bëgg naa waa géej yooyu ñu dem ëmb ko jàppale ko mu am ndam. ndax ñu géejawaay la am géejawaay la ñuy tiitaroo. dëgg la comprendre nga man man ndaanaan la mm-hmm. di jaale sunu benn papa bu nekkoon fii Père Modou Dieye. ndeysaan ndeysaan ku baaxoon su ñun moo nekkoon mm-hmm. sunu médecin écrit. Mm-hmm. Père Modou Dieye moom moo làkk ñoo ngi koy jaale bu baax a baax a baax. di ko jaale waa géejawaay gépp di ko jaale waa écrit waalo. sportif la woon moo nekkoon sunu médecin. maa ngi koy jaale di gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax àdduna amul solo. loo fi gis dafay jeex. loo fi jeex nan boole xol yi. guy gi daal combat bi mu jëm yàlla ko yàlla may ndam lu sedd open de presse nag woo naa ñëpp ñëpp ñëpp Malick Gakko hmm. kilifa la hmm. cinq millions yi mu ko waxoon nag jox ndax moom moo tax mu jël combat bi làmb ji daa metti te daa hmm. ay at la ko jox kilifa wax euh, kilifa kàddu kàddu su génnee rek génn na nag jox ndax làmb ji daa metti gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp géejawaay yàlla fi jàmm sax gërëm naa waa géejawaay bu baax ñëpp képp kuy autorité ak képp kuy mbër nekk géejawaay sama musala maire nag Aliou Sall sal ngaari bu du gédee maa ngi koy gërëm di ko sant àdduna nii la di gë di félicité bay di baax bay di ba maire Gunaas moo gagné sama at ñoom Fuuta ñoom àndaw mm. ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp mm. yooyu yàlla na la yàlla jàppale gis nañ li ngay liggéey mm. rafet na yow wasaare daa dafa wër dans le dem naa Amérique fekk fa wasaare. dëgg la ci hmm. fekk fa wasaare. ak feneen ak feneen. kon nag yàlla na yàlla de li ngay liggéey fii yow ci Sénégal gis nañ ko. Hmm. Hmm. ñëpp ñoo ngi lay suivre. dégg euh, sa wujju yaay la xaw ma ak sa yaay gis nañ li liggéey. xam nga loolu dafa neex nekk ci biir kër. xam nga di kaf ak ñoom reeg ñoom def ay affaire yooyu nga demee man lool la xam. man loolu laa xam. fair play waaye nag boole caat fu laaj fayda. kenn du ma yab mun naa kaf mun naa ree fair play waaye kenn du ma mais yow amoo ñaari jabar ba naan suñu xew suñu kër ba waaw yow sa papa moo yor ñaari soxna waaw léegi nag yow nga faral sa mujj tànk sama xarit sama sa yaay nag ah kooku boobu amaa boobu benn soxna bi la jur loolu du dara loolu sa gën a kontaan ci loolu sax ah, ah. loolu du dara yàlla jàmm fi jàmm yàgg ah, di nuyu sa cameraman bi tamit vraiment kontaan naa tey daal jiri ndax fi nga fee jiri soo ma xoolee nii xam ne laa tey laay wax xam nga lii kan moo ko décoré jàmm nga Gibson production grand promoteur moo ma décoré woon lii ci combat bi mujjee tëgg Gibson def lu baax mujjee ñëw ci làmb ji uh-huh. di ci def lu am solo vraiment maa ngi koy féliciter baax Gibson production moo ma décoré woon ma ñëw rek tey def la paix ndax bu géej waay jàmm laa fi bëgg ndax ñu ñii ko wër ñu nekk ci tuusi yi ratatati di wax hmm. ñu tëj seen lameñ géejawaay jàmm fi am ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay xale yu mbëri man maay seen mag hmm. man maa seen mag man jàmm laa bëgg man su ma gisee ay ñuy waxante ci suuf wala kuy roog ngaay sax euh, su ma xol du neex ndax su boobaa mun na ne man maay saytaane bi mhm. te man du ma saytaane musumaa toog ci diw ba diw wax ma nee wala naa man am naa fulla boo xam ni ak maturité boo xamee ni ma toog ak yow <laughs> damay wax ci lenn keneen wala keneen ak keneen damay lay attaqué dama naa damay woo kooku téléphone ndax man loolu laa xam su ma amuloon fulla aw ma fayda aw ma caractère Balla Gaye du ma téye Balla Gaye du ma jàpp ndax Balla Gaye am na ci fulla goo xam ne mi ngi ci moom at fayda boo xam ne mi ngi ci moom bugul nga toog nga wax ci diw lenn sax dana la arrête barki Serigne Saliou Mbacké billaahi wallaahi taal loolu mën naa ko témoigner. dëgg la comprendre nga. xam nga li ma la. ñun jàmm la ñu xam. Mhm. Balla Gaye taalibe la. àdduna amul solo. Mhm. buñ nañ ñu bàyyi suñu géejaway. kenn bañ ñu dugg suñu biir. Mhm. kenn bañ ñoo jaxase. am na solo waaw ñun ñëpp ñoo bokk ndeg ba Balla Gaye moo jiitu. moo jiitu yàlla moom la fi teg. géejaway kan moo ko jiital. man ak population bi géejaway. loolu yàllaa ko def loolu yàllaa ko def mm-hmm. barki sëñ ba moo fi njëkk indi roi des arènes biir way ñu koy mm-hmm. tuddoo di sago mm-hmm. soo xamee foo dem ñu tukki euh, tukki wala fenn ñu lay sagoo di la wax ak loolu naan la Balla Gaye Balla loolu yàlla la sant yàlla li ma koy ñaanal yàlla roi des arènes bi ñëwaat ci ay loxoom te incha allah rabbi yàlla baax dina ñëw sooba yàlla comprendre la de guerre waxi nopp géej way lan am géej way lañ tudd yàlla ko yàlla may komba mu bëre daan de Géejawaay naat Sakes amaat combat daan Alisey amaat combat daan Marley amaat combat daan Papta am combat daan Jackson combat bi mu ñëw yàlla may kon ndam bu Siteu am na combat. xale yi waaw léegi ñu ñëw ci am combat bëri daal ñu li jot a weesu. Hmm. keroog gis nga booy Niang 2. dafa def conférence de presse. waaw jàkkaarloo presse bi yëpp. wax ka ni Balla Gaye 2 daf koy daw. waaye yow Balla Gaye lu muy def bi sax nee na bu Balla Gaye wéree ñu jox ko Boy Niang bu wéree ñu jox ko Gris Bordeaux. xoolal Boy Niang j'arrête Boy Niang j'arrête boo ñaamee j'arrête nañu dimbali li muy def lu duñ ko wax. borom kaasu fonde waaye yow dimbali man kaasu fonde bu ñu waxati waxi fonde fonde amatu fi la dëgër këpp na lépp li nga xam ne li ma la wax ñaa dafay teg xel. Hmm. na yaru su yaroo su dee bëreeg Balla Gaye rek la bëgg. su Balla Gaye war a bëreeg moom dina bëreeg moom muy def nag waxi teg xel la. moo ak est déglu ma lii muy def affaire teg la. moo ak estafam ak ñoom ñëpp ci bokk yem. Hmm. comprendre affaire teg xel la ñuy jéem a def su Balla Gaye a bëreeg moom dina bëreeg moom na yaru tabaay wax ji xale la ndax dégg naa muy wax naan combat bi passé moog Tapha Tine dañ ko doon sot ay nit dañ ko doon sot ak ay nit dañ ko doon non non yooyu. waa waa loolu loolu moom xale la bëri na ba egsi fii mu egsi. na ko sante yàlla te mu sa wax loolu ba mu yàqal boppam. fi ku ci am nag sa kër bàyyi nga koy yóbbu. Hmm. ku ci am looy jàppale keneen te nekkul sa nit sa bor sa bopp nga koy def sa biir kër nga koy def. Hmm. am na yoo xam da wax wax dafay rafet. waaw Tapha Tine ñu ko jàppale am na ñu ko jàppale moom it ñàkkul ñu leen jàppale ñu ko jàppale comprendre nga am na yoo xam du wax am na yoo xam wax am na yoo xam su amee lamb ji su amee nañ ko à grâce ka à Aziz Ndiaye nañ ko gërëmee Aziz Ndiaye lamb jooju su amee à grâce ka à Aziz Ndiaye la nañ ñu dimbali xam na lépp combat boobu waaw combat boobu ne waay yow yàlla nañu dimbali xaw ma xaw mënti tëgg loolu foofu laa yem nan bàyyi wax yooyu am na wax yoo xam rafetul am na ñoo xam dañoo nekk pour sauver lamb pour dimbali lamb ñoo ngi def loo xam suuf ma sàmba yëgul ma demba yëgul ñun xam na lépp ci dëkk bi la ñu dëkk fii dara du fu umpe. Hmm. am na ñoo xam suñu nekkuloon ci réew mi du baax ndax lu ñaaw lañuy bañ. Hmm. defar lan fi nekkee lu ñaaw la ñu bañ defar lan fi nekkee kon nag wax day rafet am na ñoo xam ni li ñuy liggéey ci réew mi ci suuf hmm. suñ ko xamoon di leen tëj seen làmmiñ kenn bañ a ak sa kenn. kenn bañ a accuser kenn yow am nga ñu jàppale am nga say mbokk kii am mbër mi am na ay mbokkam ah am na ñu ko jàppale. Hmm. kon nag am na yoo xam jarul wax. kon Balla Gaye Boy Niang dinañ bëri. xaw ma ne yàlla xam yàlla xam yàlla xam. na yaru rek na yaru na yaru su yaroo na yaru. te bàyyi wax ji. lan mooy yaru Balla Gaye ndaanaan mi ngi naan Balla gay naan dafa waroon dem ci maire bi ñu jël ko Balla Gaye président sax Balla Gaye mën na ko nekk. waxuma la wax ay. Balla Gaye barke Serigne Saliou Mbacke mën na nekk président. président de la République président de la République. Balla Gaye mën na ko nekk. président de la République Balla Gaye mën na ko nekk. président de la République Balla na ko nekk. wala premier ministre muy wax ay maire maire kay xanaa kay man la ñuy wax. waxoon naa la xel beegi. doo def dama lay wax suñuy wax maire man la ñuy wax. ah, ah Balla Gaye mën na nekk président de la République. muy wax ay leneen. nañ ñu bàyyi wax ci waay. te liggéey. Hmm. ah j'arrête. ah na ko jël muy dagg juuti. moom laa la wax. wax bu xam nga loolu lépp. juuti marché waaw da nga may déglu loolu lépp. ban marché moo gën a may déglu xaw ma. saytaane nga dimbali ma nga am ay benn marché moo gën a déglu am na yoo xam ne booy dama lay wax bu ma soxla. waaw léegi daal Balla Gaye mën a nekk président de la République. Balla Gaye tey jii maire bi suñ ko doon wax xanaa kay man la ñuy wax. <laughs> waaw xanaa man la ñuy wax. waaw wala Balla Gaye mën na nekk président de la République. ndax liggéey na ko Sénégal liggéey na ko ci réew mi. ah mu naan na ko nan ko jël mu nekk alju man ndax damaa soxla leneen lu ñuy wax naan ah, bay mooy wax Balla bi ah wax dafay rafet waay dafay rafet kay wax dafay yanu maanaam maa ngi gërëm waa diaspora bi ñëpp di gërëm sama waay yi Paris ñoom Ndoore uh-huh. ñoom ah, Sarr bu sëñ Mansour hmm. képp kuy bëggee at sama yaaj ji Adja Gass borom Angleterre ñoom jami ah, Jali Jàmme hmm. ah Ndey Maada Baro di ko jaale waajuram bu jigéen boobu génn àdduna sama jigéen la Gambien la ma nga nekk moom ca ca Angleterre hmm. non ma nga nekk ca wa Angleterre si Angleterre Ndeye Maada Baro. Madeleine. Mm. Madeleine ma nga nekk ci Amérique. vraiment mm. Mm. gërëm naa ñëpp di gërëm waa Amérique yëpp ñoom moo Ndiaye directeur gërëm naa ñëpp Sénégal yàlla fi jàmm sax Guédiawaye yàlla na fi jàmm sax. ku bëree yàlla na daan xamaguma yàllaa xam waa Amérique gépp maa leen nuyu di leen sant ndax bëgg nañ ma di ma bëggee di ma xaar. yàlla guy gi nag combat bëgg naa ñëpp jàppale ko te yàlla tax. nañ ko jàppale. ak man ak yàlla tax loolu daal lay ñaan mm-hmm. aw ay koppar de. Hmm. waaye bii maa ko moom. waaw te damul ci poos. Ah! waaw. yàlla na yàlla musal ci càmm jërëjëf kaar macha allah bu ñu càmm <laughs> nii rek ngeen fi doon wax naa ma yéen a ngi bëre yéen a ngi musul du taxam na combat sama doom jooju yàlla na ko yàlla defal jàmm champion la ndaanaan la képp kuy mbër daal te nekk géej am combat yàlla na la yàlla defal jàmm gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm waa notaire waa gunaas partout di woote open de presse bi nag altine bii di ñëw maa ngi woo ñëpp ñëpp fépp ku mbër nekk maa ngi lay woo. Mm. ci open de presse bi sooba yàlla jërë ngeen jëf. maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf jërëjëf mbokk yi euh, Lirou Diane la ñu dalaloon dégg ngeen li nga xamante ne wax na ko ci làmb wax na ko ci géejawaay vraiment noonu la war a toogee kilifa la boo xamante ne nit ku baax la yàlla rek moo ñu tax. ñuy eh. yàgg nañu. bokk moom loolu xamul ko waral dañ yab rek. dëgg la bañ ko ma yëpp kese kese kese kese kese kese mun naa kaf mun naa ree mun naa bëgg waaye bëgguma ku ma yëpp. dëgg la bëgguma ku ma yëpp. dëgg la xale yi samay rakk lan. Mhm. ñoom ñëpp jàmm laa leen yéene. dëgg la jàmm laa leen yéene. dëgg la te yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp ndax géejawaay ci kaw ca kanam ndax damaa bëgg géejawaay hmm. damaat yeneen lëfal ya mu nekkoon lëfal yooyu ñu damaat yeneen lëfal hmm. yeneen lëfal te deen dem yeneen lëfal hmm. maa ko wax nanu booloo rek yéenante jàmm kenn bañ a xaj suñu diggante rek ñu dem yeneen lëfal. la ko wax am na solo mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ba ëllëg. incha allah sama waa ji ca Canada. ci beneen Modou Mbacke baax yaay couture. Modou Mbacke Modou Mbacke baax yaay couture. ca Canada maa ngi koy gërëm a ña nga nekkal ñëpp sama xarit la sama waay la. Hmm. sama téer la lu ma sol moo ko ñëw waaye Omar Wali Fofsen. Hmm. maa ngi koy gërëm di ko sant ndax sama mariage su rakk ji euh, Lamine Seck. Hmm. bu daf maa ñëwal lu rafet. daal may jox. ndal may ñëwal ñaw bu rafet ma yóbbu ko foofu Amadou Waly ca Touba Sandaga doomu ndeyu Saliou Khoule hmm. waaw hmm. maa ngi koy gërëm di ko sant gërëm président Mamadou Kagne gërëm ñëpp ndax xam man damaa bëri soppe te hmm. bëgguma kenn mer dëgg la loolu laa mel jili jili ma non stress jili ñëwal jaajëf ma leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah ak beneen sàpp yow jërë jëf